bu jàllee tamit bawal bawal yi ñoo am ndam donc moo tax ñu tuddee ko Bercy bawal dégg nañ fi Bercy bu nee nag mhm. Bercy Saloum Bercy feneen ak feneen ak mais bii Bercy bawal bawal la te bawal bawal yi ñooy réew mi te bawal bawal yi ñooy doxal réew mi sans bawal bawal yi Sénégal du dem donc kon bawal bawal yi ñoom ñoo moom bis bi ñoom la ñu ñoom la ñu jagleel bis bi donc ñu ñaan yàlla tamit promoteur yi nga xam ne mooy ndoy Ndoye Events at Ndawal House buñ jugee ci Bercy bawal dem yeneen Bercy incha allah te it ci loolu lañu nekk. jaajëf gis nañ ci Bercy bu ne yaakaar naa mais merci Bercy Bawol pourquoi ngeen ñëw andi turu Bercy Bawol euh, ngir war a mën a jël leneen toppandoo la wala parce que Bercy waale mooy borom Bercy nag. Mhm. waale mooy. borom Bercy. mooy moo tax ñu tuddee ko Bercy rek. Mhm. imagineel euh, benn benn weer. Mhm. nga am ci ñetti Bercy. foofu waa c'est loolu waaw moom voilà mu ngi noonu kon donc benn weer nga am ci am ci ñeen ñetti Bercy mm-hmm. muy bersi Bawol Bercy Saloum di Bercy Allemagne donc loolu lu jafe la ci artiste te lu raar la musul am voilà loolu musul am mm-hmm. donc lu mel noonu bu amee mooy wan ne musul am noonu kenn musu ko gis tamit benn Bercy ci benn trois Bercy ci benn mois non musul am ci àdduna waa loolu musul am gis nañ fi lu ne nag waaye mm-hmm. trois Bercy ci benn mois moom waali rek moo ko musu am waaw ngay dem Allemagne jóge fa Allemagne yaa ngeen yeneen yoo xam ne mi ngi taxaw sa kaw donc kooku ñun li ñu war di def ñun sénégalais mooy di ko ñaanal yàlla sunu borom di ko kàttanal muy am wér mm-hmm. ndax bu dee am wér rek ñun ñuy mu ñuy bégal saa su nekk donc loolu daal moom la ñu xam ne initiative bu rafet la mm-hmm. muy waa cees tamit gis nga ko lay la event donc le 25 incha allah ñun dem nañ fa sànq jënd table. pour jàppale ñi nga xam ne ñooy waa Thiès. di promoteur bi bi bi nekk Thiès. Mm, waaw kon kooku ñoo tamit dem nañ jënd ay table pour jàppale ko ci bisam bi. parce que ñun promoteurs yi ñoo war a booloo doon benn. pour jàppale Wally Seck donc su teyee su waa Ndoye Events Ndawal House amee événement. promoteur yi waa bi nu mu tudd sax euh, waaw moom man war na mën a ñëw jënd table jënd ay ticket pour jàppale tamit mm-hmm. promoteur yee mm-hmm. moom it waa waa euh, Bercy Bawal tamit si Saloum noonu la ku nekk voilà pour Wally Balago Seck pour Wally ngay nooyee mooy sa lépp da nga ci moom. amoo benn woykat kom li wax toujours Wally tegal micro am tey nga xam naa ci dara. Mhm. kon tey lan euh, koy jël. ah xaw ah, moo am Sénégal. benn artiste moo am ci réew mi. benn artiste la déglu. kon moom nga mën a jël. Mhm. mënoo jël keneen. moo tax ñu choisir te moom la xale yi bëgg. moom la gars yi defuñu ko la centre du peuple yàlla moo ko def mu nekk ko. te léegi ah, waaw waaw waaw léegi ma ngi ma ngi dem ay Allemagne ma ngi dem ay. États-Unis waaw waaw waaw waaw. c'est lu jafe la tamit benn artiste boo xamante ni jóge nga Sénégal dem États-Unis war a def six soirées yoo xam ne oh, bokkul six dates yoo xam ne bokkul donc. loolu musul musul am waaw waali moo ko fi mos def ngay dem Allemagne nga dem Espagne dem dem dem tamit France dem euh, Espagne dem Italie te ñaari dëkk yooyu sorewul nga def ko tamit loolu ci benn mois waaw ci benn mois nga dem ñaari soirée yooyu yëpp tamit donc loolu lu jafe la. tey tey tey Bercy ba léegi rek ñu ngi ci Bercy Bawol bi. Hmm. préparé ko le 16 juillet incha allah. waaw euh, Bercy Bawol fële ca Bambey. waaw une semaine après Tabaski. waaw une semaine. après Tabaski dañuy dem dañuy dem Bercy Saloum. bu ñu jógee Bercy Saloum. dem Bercy Bawol. Bam loolu. dem Bercy Allemagne. waaw. macha yombul. dëgg mhm. euh, yombul naam yow xam nga lu yow ci waaye loo bëgg ci moom day yomb. Mhm. waaye nag business la. waaw business la waaw ay mbiram yombul. ay waaw xam nga Wally mbiram yombul. Mhm. Wally déplacé ko rek ay millions la. ay millions la. du sax ay 30 millions yooyu. donc ay millions mooy déplacé Wally donc euh, muy muy muy déplacement bu doy waar. Mm-hmm. lu xawoon a metti parce que waali yëkkati ko yombul. donc dafa feesoon sax. Ah. li gën a ah, dee waali dafa feesoon. Mm-hmm. amoon dat dafa jafe. Mm-hmm. donc ñun toog nañ après tëgg nañ ko ba waxtaanan moom mais avant que ñu am date sonn nañ. jafe na donc waaye waali sama nit la te sama lépp la. maanaam boo bëggee wax loolu taguma la mais jox ngeen seen xaalis sax te amagu leen. te amaguñ date. Ah, waaw loolu am na. voilà ah, joxaguñ sunu xaalis sax joxe nañ avance ba bay waaj a def euh, contrat bi sax defaguñ ko parce que amaguñ date pour mën a def contrat donc dem nañ benn un mois ñu doog am date kon xam nga ne sa fees na te lu tax ñu am date bi ndimbal la voilà lu tax ñu am date bi ndimbal la at bëgg gu bëgg at fonk gumma ma fonk looloo tax mu jox ñu date bi te date bi ku ko xool xam ne date bu baax la ndax jege na une semaine après tabaski la te jege na yooyu sunu mbokk politiciens yi di def da nga koy def ba pare jublu ci ay élection donc dat bu am solo la donc kon kooku jox na ma cër te mhm. bàyyi na ma xel ñu ah, bi ñu ko bi ñu ñu joxee date bi tamit waa Ndoye si ndawal xaaw su rafetlu ko mhm. ne wax dëgg yàlla lii ndam la parce que bis bi mu ñu jox dat am na ñoo xam ne ñu ngi taxaw pour amaguñ sax dat ba léegi am na ñu ñu may woo nii pour tëgg waale mais date mooy seen problème wala te du Sénégal te du Sénégal yeneen yeneen kii la. Ah, ah, daguma la yàlla bu lay dog ñun am na date bu ñu ci moom rek la 16 bii dañ ne carrément ce 16 Bambey lañ jëm. kon xam nga ne kon. waaw ma ngi noonu benn voilà voilà voilà Ndawal House ñoom ñoo xewle le 16 juillet incha allah mhm. ca Bambey Bercy Bawal. waaw Bercy Bawal la loo xamante ne ni que euh, ku xool flyers yi. ku mhm. xool affiche yi ku xool mhm. ku xool. waaw ku xool xam xam ne def nañ ci xaalis. te it xam nga bisu waali bisu waali du ndaw. moo tax dañoo woo xel Baas. Mhm. Ah, voilà xel Baas la woo ñoom ñooy gérer lépp. parce que Waly boo ko ci ci stade bi parce que mais stade bi nag ñu ngi xool parce que nee bi no pas ndaw sax dafa nekk travail dañu nekk di ko liggéey. donc bu fekkee ne amaguñ ba ba date bi ñu wax su fekkee ne livré wuñ ko stade bi donc ñun dañu xool benn plein air bu nekk foofu ci Bambey voilà Sénégal Xelcom Baas. wala xel comme base base ko defar ko ba mu yaañji ñu def fa suñu événement bi pour siggil waa Bawol pour siggil waa Bambey parce que Bambey mënoon ko yóbbu feneen mais lu tax ñu yóbbu ko Bambey mooy Bambey dañ ko dul dégg te bëgg dem fa pour ñuy dégg Bambey voilà donc voilà te te dem mhm. c'est la première fois moom muy dem Bambey donc kon ñun bu ñu jëlee waali yóbbu ko Bambey te dëkkuñu Bambey mhm. mais am ñoom doy events ndawal xaawus am nañu fa dëkk Bambey mais man dëkkuma Bambey mhm. Bambey al Diourbel benn la donc mais bëgg Bambey am doole bëgg Bambey taxaw moo tax waa Ndoye Events Ndawal House xalaat Bambey te ñoom bo ay doomi baaw Bambey lañ ñun tamit ay doomi bawal bawal lañ Bercy bawal waxuñu si Bambey donc dañuy Bercy si bawal Mbàkke waaw fépp fu bawal bawal di yeewoo rek bu essayé daal bu essayé daal bawal bawal yi ñooy essayé day am day am man du ma ragal. waaw def lu waaw noonu la ñu kon ndawal xawas ba pare waali doo ko doo ko doo tëgg di xalaat ay échec di xalaat ay waali moom. waali moom boo ko tëggee demal. parce que waali bëggul di àndal ragal. te boo ragalee rek dangay dellu gannaaw ma ngoog du am defet mukk mukk mukk soo bëggee dégg dëgg maanaam mm-hmm. dañuy dañuy tëj foofu dem ci leneen. donc léegi pour boo bëggee dégg-dégg mooy Bercy Bercy Bawal. Mhm. du yemat benn Bercy. Mhm. Bercy bi gars yi def Paris sax du yemat moom. waaw man maa la wax loolu. la xam nga gars yi dañuy musique xaalis moo koy def. te ki ñuy tëgg dafa jël xaalis bu bari def ko ci musique mhm. kon ñun ñi ko tëgg dañoo war a jël xaalis bu bëri def ko ci moom. Mhm. déggoo li ma la wax. Mhm. ki ñu tëgg dafa def lu ne. ngir musique ngir am xaalis. donc te xaalis musique xaalis moo koy def. donc ku mel ne kooku boo ko tëggee même boo dee perte sax dangay ngay génne lu bari def ci yow nga perte moom moo am ndam. ñun loolu lañ bëgg ñun ñun sunu sunu ambition mooy lenn même bu ñuy perte sax nañ perte na waale am ndam. macha allah gis nañ ne macha allah boobu ba léegi yéen a ngi baagante di nga xam mooy Bawol Diourbel fu nekk Bambey hmm. pour ñi nga xam ne autorité la ñi nga xam ne tey ñoo bokk euh, fi nga xam ne mooy Bawol euh, muy Bambey muy feneen yéen a ngi pour ñoom ñu bokk ci événement bi pour hmm. ñu participer ci événement bu baax a baax hmm. wan leen ne ah Bawol kat ci ngeen bokk te yéen ñëpp ci ngeen def na yéen a ngi def ay kilifa yu bëree bëri waaw waaw ñu ngi dem ci kilifa yi même président de la république Macky Sall sax waaw ñun ñu ngi ko de foofu la jànge Bambey donc euh, ministre mataar Ba sama papa sama xarit la donc moom it ma ngi ci événement bi mhm. donc euh, waaw euh, président Macky Sall tamit mu ngi ci boo dee xool mairie Diourbel mairie Bambey wi moom it mu ngi ci biir waa waa waa APR ñoom ñëpp daal ñu ngi ci biir waa daam Diop mhm. waaw ñoom ñëpp ñu ngi ci biir donc ak honorable député yoo xam ne ñoom ñu ngi Bambey ñoom ñëpp tamit ñu ngi ci biir bi te ñu ngi ciy mhm. donc euh, di leen wax ni daal ñoom bis bi waa APR dañ cee taqrib parce que ñoom dañ ñi bawal bawal yi ñu ëpp APR ñoom bawal bawal yi mbir mi seen mbir lañ kon donc euh, waa APR ñu ngi ci biir ñu ngi ciy jàpp bu baax a baax parce que mbir mi seen mbir la daal ñoom loolu lañ wax dañ ñi bawal moom suñu bawal la kon lu fa nit di def rek ñun dañ ciy taqrib donc ñoom ñi ngi ci biir ministre Matar ba tamit moom sama xarit sama papa doomam Nicolas mooy sama xarit waaw moo tax jàpp nañ ci bu baax a baax a baax a baax a baax incha allah ñoom it ñu ngi ci biir événement bi voilà. maam maam Boy Diawo tamit. maam Boy Diawo waaw Badou Diawo tamit moom mi ngi ci biir dem nañ voilà ñoom ñu ngi ci biir événement bi mhm. donc euh, événement bi daal ñoom ñëpp ñu ngi ci biir Cheikh Amar sama frère mu ngi ci biir moom ci parrain d'honneur yi la bokk donc. Mhm. ñoom ñëpp daal ñoom ñu ngi ci bis bi waaw ñëpp ñu ngi ci bis da nga bëgg idal mhm. bëgg rek koo jàppale jàpp ko. mel ni restaurant bi ñu nekk tey neex na de. restaurant Ola. Mhm. Mhm. café. Ola hmm? café waaw. daa ne tey moom. ñu indi fi waaw. te restaurant murit la. yee eh, boo fekkee woon dama daal non faaw nga ñëw ma añ si ko euh, hmm. la quoi wala am ñu may woo instant waaw waaw waaw allah lépp dina fii le 20. ñu dañuy teel waa jënd billet denc. Hmm, hmm, incha fii fii le incha allah dinañ leen wax lu leer ci billet yi. waaw wax leen fan lay disponible fan lañ koy jaayee table yi table yi moom ku woote réservé ñu bind noté après mooy loolu waaw. lépp disponible na taable yi mais bee incha allah fii ak le 20 dinañ leen wax dis euh, bay yi naka lay doxalee at fan lay disponible at naka laat naka la incha allah. voilà mu ngi noonu comme ni wax rek képp koo xam ne soxla nga table lekk wala billet incha allah bientôt fii ak le 20 incha la wax fan la billet yi di disponible aussi numéro bi daaw ci bas d'écran bi euh, seen numéro lay doon saa su ne rek bu ngeen ci wootee ci euh, fi nga xam ne mooy Desprot ak ki nga xam ne mooy Wasaare célébrité ak mooy Click Dakar 221 saa ki nga xam ne mooy Ndoy Events macha allah kon yaakaar naa toujours rek ñu bàyyi leen foofu euh, ci Berti Bawol ak euh, waa Ndawul Xew tey délégué. sa doom nday mm-hmm. Wally Ballago Seck lay gis nañu ne eh. macha allah euh, ci Covid bi. Mm-hmm. benn artiste génnul. Mm-hmm. mais Wally Ballago a génn dem Europe. dèjà dem Brescia dem bi mu demee itam allah ñi naan du ko mën ñi naan mënu ko mu dem macha allah wàcce fa mu am ay coow dañoo sàcc ay oram dañoo def lii lépp ngir yàq événement bi. tuddal ko mu jógee fa encore demaat fa nga xam ne mooy Espagne. Mm-hmm. même euh, mu defaat ko même encore euh, Guy Ferme. Mm-hmm. tey coow li bari ci moom. ak Italie waaw ak Italie. Mm-hmm. war a demaat Allemagne. bu jógee Allemagne euh, avant États-Unis war na dem tamit Maroc. Maroc ñu ngi ci tànki tamit Mauritanie. Mauritanie waaw ñu ngi ci moom tamit demaat Gambie. waaw yooyu ñu ngi ci yooyu daal. ñu xam nga waali moom. xam nga artiste dafa yomb xam. xam. xam fii Sénégal doo dugg benn esthète yi rek ngay dugg gis muy joxe ay dat pour am ay soirée yu mu war a tëgg. fii amul beneen artiste buy ñu dugal ko esthète yi. voilà artiste buy dugg. ñu dugal la sa statut yi ngay def évét di wax ci ne am nga évétement bi sàngam boo xamante ne ni ko du Sénégal wala Sénégal la wala Bercy ba wala Bercy Bambey la amul. Mhm. waali rek nga koy déggee. donc kon kooku ma ngi liggéey. te ay vidéo waale boo ko gisee lu muy wax. ñu ngi woo waa Allemagne ñu ngi woo waa Nangam ñu ngi waa Bercy Salim mu ngi ñu ngi woo waa Bercy Bawol waaw moom loolu ci loolu donc kooku kon artiste la. kon kooku kon liggéeykat la. te kooku kon euh, maanaam lim ne ku ku ku ku yaafus du ànd ak moom. loolu lu am la man xam naa ci dara. waaw loolu lu am la. waale boo yaaf yaafusee rek doo ànd moom. il faut nga nekk góor yàlla dëgg. il faut nga nekk tamit borom fit. waaw fit mooy àndal boo ragalee rek doo àndal xam naa dara quoi waaw te xam nga man lu ma ragal dama am fit sëñ Tuubaa dénk na mu fit leneen kay ngay wax mm-hmm. waaye tàppet moom bokkul samay mbir donc euh, kon kooku liggéey ci la nekk te liggéey la xam mm-hmm. moo tax du jug ci ay engagement yoo mm-hmm. xamante ni ma ngi koy am parce que nit ñi dofuñu nit ñi dofuñu dama am benn benn xaritu ñag boo xam ne Gabon la daf ma woo téléphone xamul lu waal di way nag moom mais nee na dani ma seen artiste bi nekk Sénégal dafa am loo xam ne daf ko neex ci moom ma laaj ko lan la mu ni ma moom day ree rek. barke alxuraan te moom xamul li waal di way quoi. déggul sax olof voilà déggul olof mais nee na moom kooko day ree rek. te loolu da ko neex daf ko daf ko dugg quoi daf ko touché. donc kon ñaan yàlla yàlla. waaw waaw wéral ko. donc mu continuer di liggéeyam. li nga xamante ni mooy social yi muy def tamit ku nekk gis na ko mu ngi jàppale nit ñi. <laughs> mu ngi jàppale néegu doole yi. Mm-hmm. donc moom daal dafa dafa dafa boole liggéey at noppi. donc kon. Modou Amar macha allah tuuti ma liggéey la xam fowul deful dara parce que liggéey la rek musique da nga koy jox ak mu jox la li nga moom macha allah moom la la nekk. xam nga jaawale. mais ñu ngi naan yeneen mhm. mu ñëwee woon ci way mooy jàngalaate. Mhm. maanaam bi mu ñëwee ci àdduna mission du woon way di am xaalis. Mhm. déedéet doon way pour yee nit ñi jàngal nit ñi. ñàkk gi mu ñàkkoon am xaalis ci musique moo tax suñu borom fayee ko koo xam ne day am xaalis ci musique te day financé ci musique suñu borom xam nga gëmmul nelawul te Papa John suñu la laa wàlliw la bu ko weddi téere nag laa lay wax ndax ay mag ay kilifa ñoo ma ko wax ñoo ne ma duñ déglu musique waaye dañuy déglu coon mhm. parce que li muy wax daa nekk ci alxuraan waaw ah, donc kon moom amul woon yàlla def ko woon mu am wërsëg ci musique waaye da doxoon na ko koo xamante ni day jàngal doomu adama yi ci musique waaye nag ñàkk gim ñàkkoon wërsëg ci musique la ko suñu borom fayee doo koo xamante ni day am wërsëg ci musique di dimbali nit ñi ci musique te dañ nangu nangoo financé ci musique loolu rek suñu borom loolu la ko fayee waaw. waaw ba léegi rek ñu ngi foofu ba léegi duñ génn yaakaar naa ci biir Saloum yi génn ci wàllu balaago Seck. parce que mhm. la ñëw parce que yow kuñ toog ak yaakaar naa ci wàll lañ lay wax toujours rek. ñu gis ne waaye day liggéey mais gis nañ temps euh, xam naa sax bokkaale la voilà bokkaale ah, tudd waali tudd keneen moom bokkaale la. bokkaale ci wàllum showbiz. xam nga Sénégal da ngay ñu defee ne bokkaale la. gis nañ suñu papa Youssou Ndour MBS. ah kañ la loolu. Italie yàlla xam na ne yëguma amul communication. non ko tënk loolu la quoi man xam nga maa ngi focus ci waali. daanaka du may seetaan keneen du ma déglu keneen man waali rek. waali rek waali rek. Idaali am na jour ñuy def émission ma ni la. Mhm. man alxuraan laa ne daara nekkoon. bi ma ñëwee dakaar talu ma woon ay way xaw ma ko woon. Mhm. bu ma duggee boîte déglu musique di seetaan waali moom ma koy taxa def. Mhm. ci moom laa ko tàmmee ci moom laa ko xam yooyu xaw ma ko woon. donc nag lam ma woon ba tax mu am loolu ci man. moom moo ko liggéey. xam nga ko yàlla bind. dëgg la gis man sëñ rek laa gëm. amul ku may ragal wala ma lay faale. nga yéeg yéeg tey ngay taxaw ak coin moom ñàkkul ne daa am lu ma def loo xamante ne nii que moom lu ma laa wax lan la. Mhm. parce que bu ma demee soirée dooy gis du ma ànd kenn. Mhm. man kese maa ànd di fukki di ko di ko xool di ko xool rek moom. loolu tamit soirée bi jeex mais loolu am na lu ma sunu suñu defal loo xam ne day mel ni day am luy jóge ci man di dem ci moom waaw loolu man maa koy sentir sama bopp moo tax du ma demee soirée am damay taxaw di ko xool ba mu jeex ba mu wàcc ba dem ma dem sama yoon awuma ko may waxal awuma ko may defal dara dem sama yoon bu dee concert yi wala at lu ma di doon noonu la rek sama deret day yëngu mhm. ma dem may ko at rawatina ni muy def sama sëriñ bi sëriñ Saliou man gor laa nag quoi sooy soo dee xool sa gëj naa dem soirée waale parce que damay faral di effacé wu parce que ni muy def sëñ Saliou day dugg sama xol ba tellement day daf may xaw a sori day xaw a day xaw a. voilà day waaw fi mus a taxaw woy sëñ Saliou li ko waal di woy. Mm-hmm. am na am na fu mu jaaral sëñ Saliou di ko nëbbu. loolu il faut gars yi di ñu ko nëbbu. dafa garaaw. dafa doy waar dafa ko kennal mm-hmm. dafa kennal sëñ Saliou. maanaam. soxnaam jàmbaaru sëñ Saliou mënu ma cee wax daal garaawal nañ ma du ma sori ci sëñ Saliou daal dafa jege Serigne Saliou tey gis nañ ne macha allah am na woy boo xam ne toujours boole bu koy woy même boo fa nekkul ñun presse bi dañuy dañuy kontaan xam ne lii kat sama Modou Amar la muy darmanko bi Amar Amar délégué Amar bi Serigne Saliou bi toujours bu ko yëkkatee rek ñun ba ma fa nekkee man yoru laay bég yoru laay gis damay gën sa nan kaay oh Modou Amar te doo fa nekk mais cofeel googu waale am ci yow lim yëg-yëg gi mu am ci yow. waa xam nga defarub sëriñ tubaa defarub Serigne Touba daa yemut a defarub dara. Mhm. te moom nee naa leen sëñ tubaa moo nu boole. waali mënu ma koo defal lu mu amut. mënu koo jox lu mu amut. te waali ci bombam xam naa ne man fonk na ma fonk goo xamante nii ko tegu ma fenn. Mhm. parce que waali damaa xeex ndax moom nag damaa jaayante. damaa damaa jël sama bakkan. Mhm. joxe ko ndax waale. benn benn dégg non dama jël bakk boobu gars yi xamuñu lu joxe bakkan boobu génnagul de <laughs> li ma lay wax nii en mille quinze jàpp 2016 doon naa wax ni sax 2016 la te ki taxoon ma def ko mooy borom rasa yi dañoo xeex raak ma jël paaka teg ci put gi ne ko boo waxatee ci loolu waali ñu rayante kon kooku joxe naa bakkan at yoo xam ne te loolu waali yégu ko Euh, Cheikh Amar tamit boole ñu ci biiroom muy lu yàgg. muy sàmm muy voilà muy sàmm loolu ba ah. léegi. def ma kom ak xelkom bi. Cheikh muy sàmm loolu ba léegi. donc muy muy sàmm loolu ba léegi moom waali xam ne Cheikh Amar moo ñu boole. xam ne tamit Sëñ Tuubaa ñu boole man moom. muy sàmm loolu jox ma tamit cër lool. donc ci misaal gi rek su ma demee këram. man moom duñ xoolante. parce que waa kersa moo am suñu mm-hmm. diggante rusante moo am suñ diggante man mosuma jaar ci turam ci émission yi nii laay wax ay waale rek mais man moom jëwriñ rek laa koy moom jëwriñ la may wooyee donc kon loolu sëñ Tuubaa defar sama diggante moom ñu ngi ñaan yàlla mu wéy mm-hmm. noonu nag ñu ngi yàq am ñàkkul ñuy dem ci waale di wax lu ñaaw ci man ñàkkul tamit ñoo xamante ni nii man man moom kenn sañta man di ñëw ñëw di wax ci man ndax man ku ñëw wax ci man ma toog siiwal la léegi mm-hmm. comprendre nga man ragalu ma waaye lu ñuy dem ci waali di wax di ko wax ci moom lu ñaaw mm-hmm. waaye moom it dofut bëgg jeex na waaw ku xam moo daama xam ne moom lu mu bëgg te wax xanaa mu bañ faa ne waaw lu ma bëgg wax dama koy wax kenn mënuma teree wax man benn gëm laa am muy Sëñ mm-hmm. gëm naa ko ba pare te yaakaar naa ko te wóolu naa ko mm-hmm. amul kuy taxaw ci kaw suuf ma ragal la wala ma faale la Sëñ Tuubaa rek laa gëm waaw cër gee fi ne ma jox nga jox ma cër ma jox la cër cër googu ma koy sàmm at ku man di doon waaye nag sama nit moom kenn du ko laal muy Cheikh Amar di Waly Seck ne touche pas Cheikh Amar ne touche pas Cheikh Amar ne touche pas Cheikh Amar ne touche pas Waly foofu laa ne lii may def nii ay émission di wax ci Waly tere nañ ma ko ba sonn mais mënuñu ci dara parce que loolu sama deret la ne voilà avant que avant que Waly sax avant que may xam Waly ay dama daan def ay émission ci Cheikh Amar di protéger Cheikh Amar ci ay kilifa yoo xa ne ñu ngi woon ci réew mi bari waaw mais restaurant bi ñu nekk seen jus bi neex na li nga xam waaw non voilà voilà voilà ka fee beneen affaire la. ba pare kër Serigne Saliou la. waaw looloo tax ma sawar fi ki ko moom mën nañ wax ne soxna su baax la soo xam ne euh, waajuram di waajuram liggéeyal na sëriñ Saliou. muy Cheikh Béthio. donc kon ki moom fii. ki moom fii. Mhm. kër sëriñ Saliou la bokk. ki moom fii. taalibe Serigne Saliou la moom moom daf ma gis bëgg ma ndax Serigne Saliou man tamit man tamit ma bëgg ko ndax Serigne Saliou bëgg naa ko ngir Serigne Saliou parce que man Serigne Saliou la am boo duggee fii xam ne boo duggee fii rek da ngay xam ne këruk murit la ndax niñ lay dalalee ak niñ lay accueillir niñ lay voilà niñ lay yaatalee muy muy muy muy muy doomi kilifa ba pare wane wu ko xam nga lu jafee ngi noonu doomi kilifa ba pare wane wu ko ndax moom doomu Cheikh Béthio la Cheikh Béthio mooy waajuram donc mu te liggéey rek la xam te lu lu jafee ngi noonu bu ko neexoon di tëdd di nelaw di ami taalibe di def ci poosam waaw bàyyam liggéey la leen donc liggéey la gëm waaw kon restaurant bi daal maa ngi te bi ma bi yéen da ngeen a ñëw man leen xaar leen ma ci restaurant Aura Café ndax foofu mooy sama kër mhm. foofu mooy sama lépp mhm. donc ñoo ngi koy nuyu di ko siyaar bu baax moom sunu maman donc euh, di leen wax ne daal ñu ngi kër sëñ Saliou fii lañ defee émission bi daal. jeex na fii suñu kër la la ma ngoog ma ngoog euh, euh, dañ la koy livré ci saa si. buñ la toggalee doomu daa sëñ Saliou nag. doomu waaw sant ti rek maanaam tàggatoo bi mooy ñu waajal Bercy Bawal Bercy Saloum mhm. at le 26 vingt cinq pardon bu Thiès bi Bercy Thiès encore le vingt six cinq bii di ñëw muy samedi bi bi ci topp mhm. doog a jublu ci Bercy Bawal at Bercy Saloum at Bercy Allemagne. ah Allemagne bi. Allemagne bi lu ñu soxal la. Mhm. Allemagne bi ñun ñii di promoteur u Bercy Bawal dañuy dem Allemagne incha allah donc kon Allemagne bi lu ñu lu ñu lu ñu soxal la.